dañuy daal di ànd ak nag ki nga xamante ne nii moo di euh, Cheikh euh, Yirim euh, Seck nee na nag xeeb na ngañ démb ci débat ki mu soxla daal mooy Ousmane Sonko premier ministre bi ñu déglu kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko ba muy waxtaan ak Aïssatou Diop Fall. bu ñu bëggee débattre kay dañu yónni Diomaye wala wala wala Sonko mu ñëw ñu débat. waaye itam da ngaa mos a gis Sonko toog di di di débattre ak man lu may lu may débattre ak ngañ démb te lu may wax ngañ démb te. man dama jaaxal. seen premier ministre bi kay comme mosul def débat public na ñëw ñu débat. mais yéen affaire boo ko doon defaat moom nag mooy euh, xaw ma lancement. waaw ci début waaw. man man Pastef ku ma fay débattre ku dul Ousmane Sonko boobu kay bu ñëwee bu bëggee ñu débattre lu ma soxla woon ci Ngagne Demba Touré man ma fay débattre. mais mais taay nag Ngagne mais du ma débattre Ngagne pas avec euh, notre chef d'état général de la SENICEL ko ëpp koy sagar. comprendre nga lan lay wax ak moom. ah mi ngi ñaaw mi ngi ñaaw. non du ma wax ah mi ngi mos. non du ma wax ak moom ngi mos ñoom bu ñu bëggee ma débat. Hmm. dañu ko Ousmane Sonko mu ko neex. Hmm. tànn thème yu ko neex. yaa ngi dégg. tànn ci thème yu ko neex. tu comprends. Hmm. chaque question bu ñu posé mu choisir ba xam mooy njëkk a wax wala mooy mujj a wax. mais mais mais mais nag grand xam nga ne. est-ce que tu comprends. mi ngi noonu euh, alaaji euh, moom Cheikh Yérim de dafa mel ni euh, comme li ñuy wax rek ne Cheikh dafa bari xam-xam macha allah moom nag dafa jàpp ni boroom xam-xam bu mag bi peut-être moom la soxla ci ci ci ci waxtaan mais pas ngañ Demba Touré. <laughs> xam nga mm. xamut xam-xam sax. Ah. waaw parce boo xamee xam-xam. maanaam boo xamee xam-xam di nga xam ne xam-xam du age maanaam du ci diw am na nangami at maam nangami at ci bopp la maa ko ëpp xam-xam mm, ci bopp la moom fi mu tënk xam-xam moo lay wane la dese naa xam sax xam-xam mooy lam lii muy wax nii nag maanaam euh, le fait que mu bëgg wax ne dafay taxaw ci kaw bopp ngañ Demba Touré ngir yegg moo lay wan ne la dafa xamut li tax xamul mooy gis nga am na domaine yoo xamante ne bii tey xam nga daf ne nañ jëli Sonko wala ñu jëli ci jomaay am na domaine yoo xamante ne bii tey Sonko moo ko gën a maîtriser ngañ ba am na domaine yoo xam ne ngañ ba ko gën a maîtriser Sonko comprendre nga fi est-ce xam nga fi may waxee pour mu pour mu xam pour mu nekk nit hmm. parce que defe naa ni waxam ji dafa desee nite wax ji moo dese nite quoi comprendre nga hmm. le fait que nag mu ne xeet na hmm. débattre nga du question xeet da ko ragal waaw xam nga lu tax mu ragal ko moo tax mu daal dee bëgg tànn beneen combat boo xam ni du am lu mu ciy perdre maanaam tey Ousmane Sonko bu toogoon di débattre ak euh, Cheikh Yérim Seck lan la ci Ousmane Sonko di gañe dara amut lenn lu ci ciy gañe par contre dafa mel ni Cheikh Yérim Cheikh Yérim moom bu ñu nekkoon tey Cheikh Yérim lañ tànn pour mu débattre ak Ousmane Sonko rek même bu débat ba amut sax ndam la. mais léegi loolu la bëgg dugal ci bopp nit ñi maanaam pour wan nit ñi ne leen man. Sonko laay débattral mais est-ce que nekkul li mu wax ne Sonko ñemewul débat public. no moom mi Sonko organisé na fii di présenter livre. alaaj loolu yàgg na de. waaw mais dégg may déglu rek xam nga bul ne ma yàgg na am na wala amut nga na kay lu am kañ bul ne ma yàgg na wala problème. mais dafa am mu bokk ci ñi ñu tànn. moom seex Yérim. Mhm. tànn ko tànn ñoom Maïmouna Ndour fay ak ñooñu ñëpp ñu daa dee rangaloo. mooy livre solution bi. yaa ngi dégg. Mhm. di discuter ak moom. ci point yi nga xam ne bind nañ ko ku ci nekk liir livre bi ñëw war ko cee laaj mm-hmm. ak laaj yu critique yoo xamante ni bi dañu taxaw pour critiquer maanaam dañu dafa bind dara ba pare ñoom ñu liir ko ba noppi ñu ñëw di ko laaj di ko wan kii mu di leen jox ay réponse mm-hmm. ci li nga xam ne mooy mbir mi mm-hmm. kon kañ ko balaa muy débattre ak moom da leen di dajale bañ mat fukk mu def la Alboury waxoon <laughs> mu boole duma maanaam fukki yërib maanaam yirim dañuy tànn fukki yirim ñu mel ni moom ñu soog a mën a débattre ak sonk mais su yirim kese du débattre ak sonk quand loolu yéen wul maanaam ah. tey jii bu ñu waxoon ne yirim a ngay débattre Sonko loolu yéen wut maanaa quoi ci xel. pourtant pourtant laaj gars yi nee na yirim borom xam. noonu yirim ban xam-xam. Ah, ah laaj yirim bu toogee si télé bi nit ñi invité ko nga gis ni muy waxee. ni muy ah, waxee. waa gars yi da lii laa wax ci xam-xam. bul ne ma ni muy waxee. Ah, ni muy waxee borom xam-xam kay mooy dem bind livre ci sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam livre livre li yërim livre am yëpp ñu xam ko livre yu foo la. yéen la fi bind benn waay boo xamante ne daal ne ca corniche ba ku seqoon nag benn jigéen nii ak nii ko. Sonko te ñëpp xam ka nga xam ni moom la doonoon ci jamono jooju. yaa ngi dégg livre yërim yi dañu foo mu dem bind ci yonent bi ñu ne ko baaxut. léegi muy wër di wax. mais Yérim mu toog di la expliquer avant élection yi waroon na am yëpp. mais li ma dara amu ci. mais dana woon dana woon jomaay bi dem Sonko du rek. mais nee na moom borom xam-xam. mais baba borom xam-xam ci lan. xanaa ah, si wax wax lay wax. Yérim koo xam ne li ngay wax du am. léegi xam la am ci lan xam la ci wax lu amut wala lan ban xam-xam la am. ah waaw mën na ne rek de. yaa ngi de bu dee nag xam-xam ci wax lu amut moom peut-être mën nañ koo ko attribuer ne way vraiment il est champion ci lépp loo xamante ni bi wax na ko te du am. voilà Yirim bu amul woon xam dinañ koy. invité ci plateau yi xam nga Yirim non c'est que dafa Yirim dafa ñëw ba tey loolu lay nappee journaliste yi dafay ñëw boo ko seetee sax bi muy wax maanaam daanaka yow boo nekkee journaliste sax toog ak moom di wax ak moom daanaka buy wax moom di yëkkati boppam da lay xas. Hmm. te doo rendre compte ne mi ngi lay xas. Hmm. parce que ni mu doon yëkkatee boppam ak ni muy tuutalee journaliste yi. Mm. defe naa ne bu dee journaliste bu dégg nga. waroon nga gën a mën a défendre corps bi nga ne. que Yérim mii di la jéem a noy. di la jéem a noyé. Mm. noonu la def kii waa ndaw si sax. waaw noonu la ko def. Mm. mais ndaw si ko humilier. xamu ko loolu mooy ñàkk a xam. noonu lay def. Yérim day créer ay histoire yoo xamante ni bii ay histoire boppam rek la. comprendre nga. Mhm. ay histoire yu boppam rek lay créer toogaale ko dama mës a seetaan benn film boo xamante benn waaye boo xam ne journaliste la day bind ay kii yoo xamante maanaam day imaginer di bind li muy bind du nekkut lu am mais journal bi day naaw dëkk bi yëpp di ko lire maanaam yi muy bind day créer quoi moom day inventé man bu ma kiiwutoon damay wax ne Yirim ci kooku lay inspiré wu ci film boobu la inspiré wóor na yàlla billaahi mm. li muy bind existé wut quoi mais nit ñi dañ cee accroché wu dem na ba seen rédacteur en chef beeg yooyu dem ba découvrir ni waa ji li muy bind amul mais après dañ ko arrêté parce que daf ne àndut ak éthique lii du yoon parce day wax loo xamante ni bii nit ñi dañu gëm ni lii dëgg la tudd dëgg mm. comprendre nga. Mhm. foofu ñu ngi lay yëkkatil ak lu njaay mi mën a dox dox dox dox dox. Mhm. mais bu fekkente ni bii tey li ngay jaay ñi koy jënd dañoo jënd lii c'est parce que dañoo jàpp ni li ngay wax dëgg la tax ñuy daw di ko jënd comprendre ga ki xam nga xam ni jàng na génn na ci école bu normal bu demee ba yëkk ni lii ay waxi caaxaan ay mbiri caaxaan la mhm. dafa laa war a arrêter. parce que daf ne ko bu ma la arrêté wut donte li ngay def mi ngi dox. mais Sénégal nag ñoom. léegi ñaa ngi koy suivre ñu ngi lay bàyyi xel mais. Mhm. baaxul ci métier mi. Mhm. loolu la. Mhm. Yérim façon façon boobu la quoi. maanaam day nettali loo xamante ni bii mais mais nag problème moom li ko dal li ko dal dafa gën a garaaw loolu. lan la maanaam dafa dem moom ba gëm yi muy créer. ne dëgg la. moom dafa dem ba gëm ni léegi da doon créer xam nañ da doon créer mais dafa dem ba léegi gëm yi mu doon créer histoire yi. d'accord Yérim day léeb rek. lippoon léeboon lippoon. amoon na day léeb rek. wóor na yàlla. <laughs> eh Alaaji. day léeb rek. oui <laughs> noonu jërëjëf Mbengue.